Issa Mbaye, qui di Yerim Diagne, qui di Louis Camara, qui dit Amadi Cham, qui aimait bien jouer avec euh, la tenue euh, qui, qui, qui, rapprochait Cham de Leviachine, parce que mon Leviachine, le gardien de l'URSS Modern Model, Modern il lui arrivait de jouer tout en noir, mon casquette, à casquette. mook euh, Yali Ndiéguène le voilà Doudou Dieng du du Doudou Diong le voilà Doudou Diong mi tax tey jii ñuy euh, waxtaan ci ñëw démb gannaaw bi mu génnee àddina barki démb nee naa dañu dugg nag ci néeg bu nga xam ne kenn du leen fàtte néegu sportif yi ak nag li nga xam ne dañ ko ca def parce que dañu gañewul rek waaye ñi gañe yóbbuluñ leen dara moo tax ñuy jotaay fii di waxtaan ak ñoom gannaaw Bokande ñu rawante ñaari fan Bokande le 7 mai 2012 moom Doudou Diongo le 9 mai 2012 ñu toogee ki fii tey di ko waxtaane fii ak équipe nationale bu Sénégal ci yoonu Asmara 1968 match bi match amical la woon à Abidjan en Côte d'Ivoire gis ngeen de euh, le vieux stade Félix Houphouët-Boigny ni mu meloon avant ñu koy ñu koy moo nekk noonu le public du du nekk nii ñu koy waxtaanee tey jii ci ñawoon démb décédé en France le 9 mai 2012 euh, ñu indi ko euh, denc ka Ndakaaru une semaine après di ko waxtaanee fii ci télévision Futur Média ci ñawoon démb. léegi nag balaa ñuy tàggoo dama lay bàyyi nga. Euh, nuyoo ak njaboot gi ki tax tey jii ma indi la fii Doudou Diong ah parce que émission bi moom laa ko jagleel yow jaar nga ñëwoon démb gis ngeen ni ñëwoon démb teel ngeen gis Saliou Cissé Chita ñëwoon démb capitaine Wakam en 64 international dès 1968 très tôt mu nekk Euh, capitaine d'équipe voilà Koma nee na c'est le plus jeune capitaine de club à recevoir la Coupe du Sénégal des mains du, du président Senghor c'était déjà en la Coupe du Sénégal n'avait que 4 ans léegi bu ñu tax et puis sax. le premier footballeur sénégalais vainqueur des coupes nationales junior senior. ah senior hmm. voilà. ñu bari xamuñu ko. Ah, même à Wakam. moi même à Wakam même dirigeant xamuñu ko. tu ma donnes l'information <laughs> voilà tu m'as donné l'information voilà pour Saliou Cissé Chita parce que gis nga ma ko ñëwoon démb yi xajuñu ci benn émission jaar na ñëwoon démb très tôt mais loolu sennu ci woon ci ñëwoon démb bi mu jaar ak même. ta carrière professionnelle. Ouais. Tu aurais pu être professionnel, tu as refusé. En, Fra non, en France, C'était ouais. ça, à Paris Au Red Star. Au Red Star. <laughs> à Saint-Ouen, dans la banlieue de Paris. Très bien. Voilà. xaj ñu ci benn émission. <laughs> mais tey jii dafa ñëwoon pour pour témoigner ci xaritam Doudou Diong bokkuñu club. Doudou Espoir Dakar la rek ancêtre Jaraaf moom Wakaam te ñuy xarit en équipe nationale daaw ñu tàggoo hmm. léegi ma bàyyi la nga tëj waxtaan wi ci jëmale ko surtout ci frère Doudou yi ñoom Abdou Khadr ñoom El Valid hmm, hmm. ses sœurs ah ñoom ñoom ñoom ñoom Suado ak euh, ak Ndey Fatou ah ñu kontaan trop keroog ni ngeen taxawoo Doudou ci biñ koy denc ma bàyyi la nga tàggu famille bi ak la maman Hélène la maman de Doudou wala ñu ci bare doomam yu bare sax ñu on s'est vu à l'aéroport à trois heures du matin. Boubacar yaa nga foon ak euh, le ministre euh, Gakou. Gakou ñoo ko Louis Camara mu nga foon. mais euh, dafa dawoon yaram parce que Doudou ni ñu meloon moom il est parti depuis 68. ñëw na deux fois ñu kenn gisatu ko. Mhm. ñu ci bare amatuñu sax benn image ba nga xam ne mun nañ ne kii mooy Doudou. mais ñun keroog bi ñu ñëwee foofu gis. gars yi fa newoon yëpp tous les anciens du du des espoirs Dakar ñu ko fan. ñoom Mendes mais même les dirigeants. des supporters ya nga xam ne da leen daan gis ñu toppatoo topp espoir Dakar. mais bi ñu gisee loolu dañ ci dañ ci bëgg ba nga xam ne. Mhm. vraiment Doudou mérite beaucoup plus que ça. wax nga dëgg. kon bokk léegi ba tey ma des ci groupe bu Asmara 1968 bii nga xamee ni moo di Coupe d'Afrique bi du Diongue def daf ci jógee après dem en France booru euh, Marseille booru Montpellier et cetera rappelé naa leen club yi mu joué en France alors kii c'est l'arrivée à l'aéroport à l'aéroport d'Addis Abeba mooy bi groupe bi accès gerbe de fleurs kii mooy gerbe de fleur bi nga xam ni moom la ñuy jox gan groupe bi moo nekk nii bi mu accès ci aéroport u Asmara gerbe de fleur moom la ñuy jox nii le président Diémé Joseph Diémé président fédération sénégalaise de football Doudou Diong suñu euh, xarit bi ñuy waxtaane tey moo nekk nii Doudou Diong suñu xarit bi ñuy waxtaane tey génn àddina le 9 mais ci weer wi 2012 moo nekk nii gis nga de ci droitam Chita mi nekk tey jii ci studio bi ñëw di euh, témoigner dama xool photo yi rek ma ni kii daal Chita laay woo euh, pour mu ñëw témoigner parce que dama remarqué ni mook Doudou Diong day photo yi bare dañu dend Doudou mi ngi nii Chita nekk ci droitam alors je reviens là avec Pa Diémé également décédé moom tamit très grand footballeur là c'est Louis Gomis Louis Gomis qui a donné son maillot à son fils vous connaissez Jean-Claude Gomis qui a joué au Jaraaf keroog bi ñuy door Togo 5-1 te Moussa Ndaw Mamadou Diallo ak Amara Traoré dugal 5 bi yu doomam la woon comme milieu terrain passeur le voilà Saliou Cissé Chita voilà Doudou Diong bi ñuy waxtaane player bu rafet bi en blanc noir Yatma Diop a nekk nii ci wetam ah kii di Yatma Diouk moom it doom ji jox na ko mayoom parce que Serigne Cheikh Diouk capitaine u Linguère di équipe nationale ci la koy doomama kii di Jo Diop ñëw na fii ñëwoon demb moom Jo Diop à l'époque c'était l'entraîneur adjoint entraîneur adjoint de Mawade Wade ma yéeg fii kii dirigeant yi la ba tey représentant fédération sénégalaise de football le visage mais familier je n'arrive pas à mettre le nom sur le visage vieux Faye nekk nii ndeysaan moom it génn na àddina au Jaraaf de Dakar la joué et au mais Dakar waa la bu demoon enseigner Casamance joué foyer de Casamance kii euh, Toumani Diallo à l'époque l'un des plus grands gardiens africains fii Mawade mooy yëre nii Mawade Wade Edouard Niaka Dia nekk nii Issa Mbaye décédé qui a aussi entraîné au Gabon kii di si Sidibé ah très grand footballeur à la Jeanne d'Arc très grand secrétaire général de la fédération sénégalaise de football wan naa leen euh, Joseph Diémé mi gerbe de fleur bi ici c'est à l'aéroport d'Addis Abeba xool leen borom bone bi bone carré bi ñu ko daan wax à di Pa Beskay Diop sëtam a ci biir rajo biir télévision TFM yéen a ngi seetaan Zeynab bi ci l'Oeil du Tigre ak Moustapha Gueye maama ma nekk nii maamu Zeynab bi ci l'Oeil du Tigre ak Moustapha Gueye Zeynab sa maama nekk nii moo la dàqoon sañse de gis nga bonnet carré beeg euh, lunettes yi waaw moom laa wax ni góor gi euh, li ni ni ni ni euh, Alaaji Ibou Sakho ak Pape Serigne Abdou mel ci diine noonu la meloon ci biir football bi on l'a perdu remplacé guñ ko góor gi Beskaay Diop fu ñu waxtaanee mu ñëw Joseph Diémé nekk nii kii waa ambassade bi la ba tey Baye Moussa Paye moo nami moo nekk nii Yérim Ndiagne bu académie moo wadd wadd moo ko yaat ma jóg Yérim Ndiagne nekk nii ci gannaaw Baye Moussa Paye kii di Astuko Gueye arbitre bu décédé moom hmm? Pape Ndiaye moo nekk nii Pape Ndiaye euh, euh, bu sama tante seeni bu gay ndate ak alaaji euh, Yuga Fali Ndiaye bëggoon foyer France Sénégal moom it Pape Ndiaye année bi foyer dafa gagné championnat du Sénégal gagné gagné coupe du Sénégal ah def na ci lu rëy rëy kii moo di waa ambassade bi ñu ñëw à l'accueil nous sommes donc à l'aéroport euh, euh, euh, d'Addis Abeba CAN 68 le Sénégal vient d'arriver gerbe de fleur bay nekk nii dans les bras du président Diémé Doudou Diong mi ñuy waxtaane moo jonkan nii ndeysaan ak trois quarts bi mu bokk il te élégant gis ngeen sañse bi de pull vert bi ak trois quarts moo nekk ni ci wetu Saliou Cissé Chitta mi toog tey jii ci studio bi di témoigner ci Doudou Diong mi ñu ñàkk le 9 mai 2012 alors bu ñuy waxtaanee Doudou Bay tëj ma ci daanelee Malick Gakou parce que Malick Gakou ne connaît pas du Diong. Mmh, l' actuel ministre des sports il ne connaît pas Doudou Diong. bi Doudou Diong di jouer en 68 je ne suis pas sûr que Malick Gakou juddu mmh. je ne suis pas sûr mais bi Doudou génnee àddina famille bi woote dal ci man ma yëgal ko ministre bi le même jour dafa ni ma kan laay waxtaanal ñu dugal duudu ci avion mu ñibbisi ma jox ko numéro téléphone doom ji Boubacar mu woo Boubacar moom le ministre à l'heure qui a suivi Boubacar rappelé sur moi pour me dire tonton c'est fait et fait le ministre ma demande de mettre mon père dans le premier vol pour Dakar te fekk na ku am sa waa kër mu nekk en France gaañu mu ñibbisi ni mu jafee Malick Gakou yombal ko en une heure de temps mënuñu jeexal émission bi te duñu daaneele ci Malick Gakou ci loolu mu def ci Doudou Diongo xamu ko sax mais xam na ni c'est un sportif bu sportif yi di di di ndamoo di tiitaro e voilà ce qu'on attend de ceux qui nous dirigent parce que lép ci waxtaan lay mujje Cissé merci d'être venu Saliou Cissé merci d'être venu capitaine de Wakam coupe du Sénégal des 64 ami de Doudou Diong ma ni su may waxtaanee Doudou foog ma jëli ku nga xamee ni bu ñu Doudou dee gis di dégg dana ci kontaan ñëwoon démb jërëjëf c'est vrai qu'on a de mai vraiment de sinistre mémoire. Mhm. tour à tour Doudou Diong Jules Bocandé Assane Correa Abdoulaye mhm. Thiam l'entraîneur de l'équipe du Sénégal des Jeux de l'amitié 1963. Mhm. gagné ba pare joxe équipe bi ni maa ngaa dem enam dafa am lu may préparé ji. kooku moo génn àddina moom tamit ci ci fan yi génn addina ci fan yi Ablaye euh, Ablaye Thiam euh, di ko jàll sa famille Réveil de Saint-Louis. et à ce jour c'est le seul entraîneur national bu gagné loo xam ne ni ku ko gagné muy Coupe d'Afrique. Cameroun Nigéria Niger France Tunisie loolu la fi Ablaye caam bàyyi. yàlla na suuf woyof ci kawam. jaar na ñëwoon démb gis gen ko Abdoulaye Thiam est passé à ñëwoon démb et très tôt et très parce que œuvre moo toll noonu ma fekk ka këram teel jàlle Ablaye Thiam ñëwoon démb mais danaa leen ko wanaat parce que tey jii bi mu doo àddina di ko waxtaanee waat dafa nekk ba tey luy neex di ci jaal waa Réveil de Saint-Louis son entité son club de base à Saint-Louis ci jërëjëf mbokk yi ñëwoon démb ba beneen Chita jërëjëf. jërëjëf Ablaye merci. démb wi su na waaw yi duma te fàttali mooy maam dafa sonnoon ci nasaraan garab guy bu meññeereen yaata duma tee